salli ala muhammadin sayyidul arabi xam ne yéen a bàyyi xel ci Leral TV maa ngi leen di boole ci juri baat bi yàlla boole gën a sell gën a tedd ma doo lis bépp néew ba néew mat koo lis baatu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kenn ku nekk ci yéen fekk naa la fa nga toog nag yow sama loxoy xool di la nuyu di la ndokkeel xam naa ne namoon ngeen ñu depuis ginnaaw avant màggal ba léegi tubaarkaal la dañu ci télé bi nekkoon ci terrain bi tubaarkaal la ginnaaw bi ñu jógee Touba asuna dem Kaolack ànd ak équipe bi ci liggéey bi tubaarkaal la macha allah waaye te nag ñu ñëwaat ak yéen seen émission bi nga xam ne moo di ëttu bi fii la ñuy waxtaane yonent bi fa lañ koy taggee fa koy bàkkee fa lañ koy jooyee moom Seydina Mohamed di ndokkeel kilifa réew mi a di nekk ci réew mi tubarkàlla di ziar a baax xalifa nekk ci réew mi Cheikh Cheikh Sadbou Cheikh Cheikh Sadbou Serigne Babacar Sy Mansour

ci son bi di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp ñu leen di kontaanee ci émission bi nga xam ne moo di ëttu na bi ëttu na bi nag dañ fiy waxtaanee yonent bi des fois ñu ko waxtaan ak jàng waaye tey nag dañ koy def spécial jàng bàkk yonent yàlla Mahamad ak ambassadeur boo xam ni ràññee nañu ko waykat la jàngkat la nabiyeen la elhaaji la ca màkk di Cheikh ca Nibsaat ah, di Cheikh ca Daara tabarkalla Serigne Cheikh Bamba Seck oto bu jubee gaar day kon ne kenn ko présenté ci mbir amana rasulillahi sanala la la la yaay borom yaay sa laa ilaaha illallaah yaay borom baax Cheikh Adara me ay Idara laa laa ilaaha illallaah Cheikh mooy sama am rasulilah mooy sama. rasulilah mooy sama. taalibe Cheikh doomu ay dara sangala. taalibe Cheikh doomu Aydara moo ma yee laay laay la la yaay borom ba yaay borom gi ne yaay taalibe Cheikh doomu Aydara laay laay la la yaay borom ba na bay sama am Rasulillah mooy sama Cheikh Adara mi ay dara sangal Cheikh Al Hadrami yeneen muy sama ay Cheikh Al Hadrami taalibi Cheikh du mu Cheikh Al Hadrami ay sama waajaani ni Cheikh Al Hadrami Cheikh Hadrami ay dara sana mooy suñu sëriñ mooy suñu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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi alladi la yuti gaysan muxiisan aatiyan bilbasti siwaahu jalla mumtiru l amtaari muammima alxuyuusi l aqtaari alhamdulillahi rabbil aalamiina munawwira absaari l aarifin bi nuuri maarifati wal yaqin wa jaasi bi azimmati asraari muxaqaqin bi jasabaati l qurbi wa tamkin xamdan liman ala alhuda hadaani summa ila tariqati jeylaani ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad jërëjëfe cheikh na cheikh saad bu jërëjëfe cheikh na cheikh saad bu jërëjëfe cheikh na cheikh saad bu na Cheikh Saad bu doomu Cheikhna Cheikh Mouhamed Taqiyullah doomu Cheikhna Cheikh Al Khalifa doomu Cheikhna Cheikh Saad Bou Khalifa Sayyiduna Mouhamed yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér suñu bunt ci moom di taalibe cheikh yi doomu bàyyi cheikh yi doomu mm-hmm. bàyyi cheikh yarbaana satub cheikh yarbaana bàyyi mënatu doomi minatu yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di borom jine yi ci daaru salaam ndaganu cheikh na cheikh alxadrami cheikh sidi bi borom xardalana nuurun azimu li mu yadri ala cheikhina alxadrami di nuyu waa Leral TV eh, di ñaanal yàlla Cheikh Hadrami Cheikh Sidi Biya yàlla na fi yàgg la te ànd ak wér yàlla bàyyi kook ñun jàmbaar yu jàmbaar yi borom jinne yi ca Daaru Salaam Ndogono eh, Ousmane Rasoul li nga wax juumuloo hmm. maay borom ñetti kaala yi ca Nimjaat lu tax ca ndeen ca Nimjaat eh, lépp mi ngi xewee Daaru Salaam Ndogono kër Cheikh Hadrami hmm. ma am ñaari kaala ma am benn kaala dem baytilaay xaraam sama anniversaire mu kaalawaat ma barki dem ci gàmmu gi mu kaalawaat ma kon ma nekk borom ñetti kaala yi eh, eh, macha allah eh, ak benn alaaji di la fay nuyoo di ànd ak nag ñi ma àndal Cheikh Tidiane sama rak sama xarit sama lépp sama doom Fatou Fatoumata bintu Rasoul la grande nabienne ak sama jàmbaar yi ma àndal waa kër yent yàlla Muhammad yi bu ñu demee ba ci kanam dina leen présenter incha allah di nuyu waa Leral TV yëpp macha allah jërëjëf sëriñ Bamba Seck mu ngi noonu loolu nuyowee alhamdulilahi lazi alal huda hadani summa ila tariqatil cheikhina wa imamina bosina cheikh Abdou Khadir Jeylaani sultaanul awliyaa docteur yu góor yàlla yu taarkal mu noonu sëriñ Bamba am na kuy bàyyi xel Leral TV koo xam ni kenn représenté ci réew mi waaye mu ngi lay soo gis bëggoon xam kan mooy sëriñ Bamba Seck waaw sëriñ euh, dafa nekk ndongo daara wax naa ko fépp ndongo daara sëriñ Bamba Seck mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambassadeur maam Cheikh Chassan taawu Cheikh Cheikh Hadrame Cheikh Sidi bi borom jinne yi géewalu yent yàlla Muhammad loolu rek doy na loolu rek doy dugg ci tagg yonent bi nàmp ko nàmp ko da ko donn waaw ñu bari dañuy wax ne dañu koo donn ci géño ah da nga ko nàmp man dama ko nàmp soo jur ji man tagg yonent ñëpp xam nañu ko ca ca Ndar ku siiw koo xamante ne bëgg jox turam ci télé waaye ku xam ku yoonu tariqa yoonu tariqa bi boo mënee jàkk dina ñu bare dañuy wax ne moom mënul woy sax yaay ma ko dàq woy waaw nga judd maa ngi koy nuyu fi yàlla bàyyi amiin incha allah li nga kër Cheikh Hadrami Cheikh Sidi Bouye man ma jël relève bi ci moom mm. eh, damay wax ne jànguma ko mm. dama ko nàmp bi ma ko nàmpe it wax naa ko ci tele yëpp nàmp bi doyul ndax ñi ko nàmp sama famille bare nañu taxul ñu way ko mm-hmm. wante ci ndimbalu Cheikh Cheikh Hadrami Cheikh Sidi Bouye ci moom la samay ay way jaare hmm. donc ce qui moom moo tax man ma way gën àddina di nàmp saay da tey di way wala waaw ah, dama wala wala wala wala sama daf ma doon teg ci kawam di di tàgg yonent bi di way benn xasida bu ñuy wax bu ko bu ko na cheikh taalib bu yoo jox hmm. madaxtu bi cheikhin sirajan ajos la aliya yawman ala min afus hmm. loolu daan way waaye nee na man sama jamono dafa tombeek moom muy yonent bi antum wasilati ilay antum wasilatu ilay antum wasilati ilay wal hashar fardun alayna humukum ya ala sayyidil bashar kon dama ko nàmp ci moom tarkalla nga juddu gën a àddina sa wajuru góor sa wajuru jigéen di tagg salaam nga napp ko ci moom kañ nga xam ni man mii kat war naa tag yonent bi bi ma Cheikh Cheikh Hadrami Sidi Bouya joxe këll meew ba ma naan ko hmm, këll meew ba nga naan ko waaw këll meew moom këll bi moom Ousmane Rasul wax naa ko fépp hmm. mhm. këll meew bi hmm. wallaay dëgg la bu ñu waxee Cheikh Hadrami Cheikh Sidi Bouya ñu ne mooy borom jinne yi dëgg la ndax boo ñëwee sama famille ñun ay doomi géwal lañu moo tax nga dégg gawloo di doroobe waaye taxut ñu way de déedéet ginnaaw bi ginnaaw bi mu soobee yàlla mu jaaral ko ci moom Cheikh Nasser Hadrami mu soob ko bëgg ma defar dégg may wayantu mu ne indi leen ma ko Daara Jolof hmm. Cheikh Baye Sylla yal na yàlla yokk leeram moo nekk suñu président daayira jamono yooyu hmm. ñu indi ma daara amagoo wasila ah amagoo wasila booba non booba boobu ñu ngi ci daayira bi ne waaye hmm. xamul ay affaire wasila yooyu ay xale lañu quoi ay def affaire booy disco yooyu. Mm, bu tuur dara. Mm-hmm. daa ngi woy ñëw bu ñu neexee du ñu ñëw. Mm-hmm. Mm-hmm. nag boobu fekkee na nag jàng naa alxuraan nag ba ñibbisi nag alxuraan bi mu dafa yàgg ak ba. ah daara. waaw man jaar naa daara di di di sama sëriñ bi ma bi ma jàngal El Hadj Cheikh Bachir Samb. yàlla dool dolli leeram. waa këram ñi ngi fi su ma tuddee Mouhamed. Mouhamed Samb. barki démb rek ñoo dajee baytilaay xaraam man ak moom. Mhm. Euh, ak euh, Mamour Samb. Mouhamed mhm. euh, Abou Mouhamed Samb ca Pikine. Mhm. képp ko xam ko xam Cheikh Bachir Samb rek xam ne njabootam it ñu ngi baytilaay xaraam mi. ñoom ñoo ma jàngal. c'est sa dégg la ko indil. waa xadra mi si di ndeysaan boobu dafa benn taalibe bu ñuy wax fii cité police moo doon ngénte doom ji sax mi nga tuddee wala su ma juumul. cheikh na Mouhamed Fadel. wallaay na waxeer docteur góor yàlla yi. ñoom cheikh Mor Ndiaye ñoom cheikh Adama ñi ngi ñi war a jàng ñeente la. Mhm. donc ñun dañ faa rek. Mhm. ne ca daayira ba léegi nag xam naa avant cheikh na fatu noonu. Mhm. ñu bàyyi ñoo xayru din bi rek ñun ñu ciy jéem. may way benn way mu daal di ne cheikh Baye kan mooy way noonu mu ne ko Serigne mu ne ko Serigne man mu ne rakku Marème Seck rakku may Seck. mu ne ah mën na way de. boobu dama doon dégg di waaye te fekk Moussa Moussa Seck yal na yàlla yokk leer moo daan way benn way naan la ilaha illallah la ilaha illallah yow Cheikh al yaa di sangu sangi ye ko ko laa jëkk way mhm. way moom mhm. loolu ci jëkk way ak jirim gën nañoo jooy noo daan wooyee jirim ya gën nanu jooy wetaayu dara jooy leen Sidi Boya dem na ay dara ndeysaan yooyu daal léegi moom mu dégg ko mu ne hmm. nañ ma nañ ma indi daara hmm. bi ah mu jaar ak man fi mu fi mu bëgg jaar ak man depuis boobu it ñuy way nit ñi xam nu bëgguñu ñuy tagg yonent bi waaye nag wutaluñu sens interdit. Hmm, moom Cheikh Dramé. waaw daf ñu libéré daf ñu dafa dégg li maamam wax fa jaddi rasulillahi ah, taha Muhammad ah, ana Abdul Xaadir Cheikh kullu tariqa wallaahi moo ko Sénégal la ñu nekk. Hmm. mën nañu yem suñu tariqa. waaw waaw mën nañu yem suñu tariqa. Hmm. mais ñun ñëpp a ñuy woo. waaw ñëpp a ñuy woo te moom ñëppay ñëw ci moom. ñëpp lay ñaanal. dafa international par exemple. boo demee néegam na nga gis photo Serigne Touba photo Seydil Hadji Omar. day toog ci tànn sax daan ne. Cheikh Bamba wayal ma sama maam Seydou Hadji Malick wala wayal ma sama maam Serigne Touba bañ nekk sax daf leen bëgg ba am na sëtu mm. sëtu Serigne Touba waaw mi ngi Serigne Fallou Mbacké Targal di ko nuyu de passage ñi ngi seetaan mm-hmm. ak njaboot njabootam gi yëpp ñi ngi seetaan waaye ñi ngi seen eh, ñi ngi nuyu nag soxna Sëyya mm-hmm. Sëyya min Cheikh na Cheikh Aya Cheikh Talib bu mu di Cheikh na Cheikh Sall doomu Cheikh na Cheikh Talib wallaahi na waxee Cheikh na Cheikh Sall mi ngi nekk ak Cheikh na doomi Cheikh na Cheikh Abbas. wallaay na xeertu xeertu. kon tey ay ponkal ñoo ñuy seetaan. wallaay ndeysaan ak waaye soxna Addu. Mm-hmm. doomi Cheikh Gunnan la. wa xeertu. mi ngi ñuy seetaan. tabarkallah njabootu maam Cheikh na Cheikh Sall waaye. wallaay rakku Cheikh Hadrami bu ñu mm-hmm. naan. Eh, jàmbaaru Cheikh Hadrami di borom yaa salaam. Mm-hmm. Cheikh na Cheikh Mouhamed Wade. xeertu nekk caatu Cheikh Sidi Bouya. wa xeertu ñu ngi ñuy seetaan. maanaam njabootu maam Cheikh na Cheikh Sall bi ñu yëgee ni man damay ñëw tey ji fii ñëpp ñu ngi ñëw ban heure la. mais ambassadeur bi moo tax. waaw yaa ni toll. waaye tey émission bi dama ko jagleel soxna Sëya. ñu koy nuyu bu baax soxna Sëya. bëgg naa nag nga xamanteek moom. dégg naa mbaaxam gi ko. te wax dëgg yàlla. woo na waa kër Cheikh Mouhamed Fadil gi yëpp. wallaay dama xeertu mais tey jii suñu ambassadeur daf ma marraine émission. ma nga ma nga ma nga ba ma nga ba ba ba ba Nouakchott. waaye li muy toog barewul. moom mhm. day macha allah dafa nekk ci mission bi rek. waaye nekk nit ku baax bi ma ko nee. damay def émission te daf ma lebal teraanga biir kër Cheikh na Cheikh Aya dama ko wax rek mm-hmm. mu ne ma maa lay jox maa jox paasu taxi. ndeysaan maa ngi koy nuyu ci combat bi li gars yi naan combat yombalal nañu ko yombalal nañu ko li ñu waroon def la la defal ko defal mi ngi noonu ñu koy nuyu baax ajal si suñu déplacement a yomb nii mm-hmm, wallaay kon soxna soxna soxna Sëya doomi Cheikh Aya tey jii moom bu soobee suñu borom lu ñu fi jàng rek yaa ko moom. barkalla ak waa Kër Cheikh Al Aydara Sirif ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jaar di jaar Cheikh Anay ma ne fa fan mu ngi ñu bàyyi xel Cheikh Idou moom it Cheikh euh, doomu Cheikh Dramé moom it mu ngi jaar bu baax a baax tabarkalla di ndokkal ñëpp Cheikh Bamba ngay tagg yonent bi bu neexee nga toog xeeru din bu la neexee tagg takk ndigg li fanaan nay jàng. waaw moom ndax euh, dina yomb. Euh, ndax ñii dañuy jël fanaan ne taxaw di gàmb def ko muy seen woy ñii di xeeru din képp nga boole ñaar yëpp Euh, maa ngi nettali léegi xale yi laaj leen bëkki dem Foundiougne lañ doon jàng maa ngi nuyu waa Foundiougne waa kër euh, waa kër ma euh, Cheikh Cheikhou Diène mu Cheikh na Cheikh Sidaati mu Cheikh na Cheikh Sidaati mu Cheikh na Cheikh Talib mu Cheikh xalifa ba di Seydil Hadj Malick Diène ak famille bëkki démb dañ faa jàngi ñu proposé ko yeneen jàngkat ñu ne ko non non woo leen Cheikh Bamba Seck comme jàngu ñaan la kooku moom daal di wax ci man ci ay qualité yoo xam ne xëy na peut-être sax nekku ci man laajal kii ban heure laa commencé jàngi trois heures du matin la ñu njàngu fanaan la mhm. dañu toog xadara ba pare xadara yi man ak moom képp la mhm. inamoraana ba mu jeex te loolu damay wax ne jàngkat war na ko mokkal d'abord mhm. muy wasilatul maqasid bi jàng ko ba mu jeex ki ñu ko doon defal mi ngi en face ñuy jàgg na falam ko denc ci biir jëm jumaa ji loolu kenn xippeetu ci inal muraada bi rek ba ñu yëkkatee mun ko lay mm. téeméer tur man tur tur yàlla yu manqué benn ñu pare jàng yi imaam yaa ngi toog mm-hmm. ci biir jàng la ñuy wax ne contrat bi ñoo ngi may seetaan rus naa ñu may seetaan wax lu lëkk mm-hmm. ñu ne ma contrat bi signé nañ ko d'office imaam d'accord loolu nag xam-xam fekk. taxaw dañoo taxaw jàng man Ousmane bu la bu la neexee léegi ma du taxaw. Mhm. bu la neexee ma ma ma ma xadara bu la neexee ñu dëpp tabale bu la neexee léegi ma xayru dim fii laay toog suuf te su may xel damay toog xaw ma ndax du yàq dara ci cadre bi. xam naa ne du du baax ndax caméra yi. waaw kii la rëbb wala moo tax. mais bu dul woon li ma yàq cadre bi. Mhm. su may xayru diine may toog ci suuf. may xayru diine. yeneen maa nga juddoo. cama yonande manga gabda ya magata wa khabruhu fil azlami yonande manga judo walai cama keta manga yaro cama keta ndeysaan manga gabda ya magata wa khabruhu soxna saye sama ma nga juddoo wallaay jamaa kita jamaa kita wallaay ma nga gata yamaa gata musaba dube li manara nabi usrere a والخاسبي واغلى المدر ابو اراد تيمي من الحبيب المصطفى كفو عني تعاد بي خطبنا بي ينن قلوب عيد البسمله والحمد لا والهيل لا والحوق لا والعصب لا إذا استداء للكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم képp kuy seetaan Leral TV na ñëpp def nii ñu màggal Moussa sallallahu alayhi wa sallam يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على خير نبي وخير ما بعوس حبي يا سائلا يا سائلا يا سائلا يا سائلنا يا سائلا على النبي وليد لي لا دل يبي la ba doox moom sëñ Bamba Seck torkal ni nga koy defee di xayru din nga doon ko ci sa waajuru jigéen dafa bari xayru dafa bari bari nay façon bari na façon bi mu fi ñëwee euh, indil nga ma xayru diinu démb. indil ma bu tey ak mu barki démb. boo demee ndar. li ñuy xayru diine ndar. ndar waaw. Ah. yónnee naa ku la xam ni fi dawaami. laka ya baaril anaami. wa ala zanni zanni xusnu taxdina waxdi taami laka ya bëgg. la mag ñi bëgg. moom la est-ce que xam nga moom la nar a def le 18 fële sama kër Thiès. incha allah xayru diin indi. 100 pour waaw ay ñoom. yaa rabana axfir zanbana wa zanaba man axaabana bi Cheikhina Saadul bi Cheikhina Saadul عليه وسلم ونجنا من المرار وخير امام شيخنا السيد وقوة سوء قدرنا بشيخنا ساد الأرب واخلين بشيخنا ساد الأرب ولا قد يمدر قد يقولون أنا أرجوك اسخ الباني بكل دنسي قصفاني أنا أرجوك اسخ الباني jërëjëf gis nga yooyu déedéet xam nga <laughs> moom laa la bëgg a wax man damay dem ay jàng xool emplacement bi xam na fii xew nañ ko lu kenn sañul def maa ko def bërki dem dama dem jàngu mariage mm-hmm. ngénte ngénte defe naa ngénte la mm-hmm. jàngu ngénte ñëpp toog mais tuubee laa toje jàngi tiijaan ak murid ñëpp di jooy mooy jàngee tuubee bi loolu euh, ñu koy kam ci taraxe bëri na loolu tuubee moom ñëpp moom la ñëpp tuubee bi la ñuy xaar fi ne tuubee bi beeg waa Instagram ñëpp tuubee la ñuy xaar ma màddaa ko noo koy noo koy màddaa tuubee ñaari temps la ah, am na ñaar ñaari temps la waa ndar ñi ngi may seetaan ah. ba pare nag damay dégg ñu naan ndar euh, euh, tuubee ndar la dëkk dëkkul ndar dëkk ah fu tuubee fu yenent bi dëkk madinatu munawwara de ma nga màkk ba màkk tam way boo gis ñu way ko yonent bi ma nga ca wa sallam day dellu ko na ko nee na way amul frontière ah, kon day xal rek ah. fekk ji waaji borom way wa wante nag seen d'origine hmm. maanaam xayrudin daf xayrudin ndar ndar dafa respecté xayrudin hmm, waaw waaw Ousmane dañu war a xamee gaañi gaañi ci biir gaañi de hmm. kër Cheikh na Cheikh Sall bari na ay jànkat de ñu mën a way xam tariqa bi nekkul am say tabala rek di tëgg. tuubee dafa dama la ko wax dama ne dafa am ñaar ñaari temps. ban ak ban la. bu njëkk sama ñoom yaay dañ naan. lu ñuy wax. yeneen ma nga juddoo ca Maakata. Mm. ma nga yaroo ca Maakata ma nga gàddaa ya Maakata wa xam filias rabi muhammad ma nga juddoo ca Maakata ma nga yaroo ca Maakata yambe ma ma nga gada ya Maakata xabroo filias rabi yambe na tuubee li man raa nabi bu ci ma ñëw ma ñëw dem ba ci buntu bu la neex la neexee nga dem ba ci sallu ala xayru nabi bu la nga ba mawlidoo yaa xam la neexee nga dem ba sama afdal xure bu fekkee dafa dem ci sama afdal xure nga dégg deuxième temps bi keneen jël ci suuf يا رسول الله أي القري أي أي القري أم القري صلى الله عليه وسلم شهد رامي سمام يا برب جلي سمام سخنا سي سمام سماو آم دالي القري maami Cherif alwalid maana njaay ayul quraan umul quraan yanaan fi maaxi al dalil waraa muhammad xayru nabi wala mu ne yaa rasuulallahi mawlidahu كتا وبعثه بما قتا إسراؤه بمكة وقبره في الياس yii mooy mooy way ndeysaan maa ngi nuyu suñu benn jëwriñ ma nga ca kër ga jógee ndar barki dem nekk ci Cheikh Hadrame naan ko Cheikh Ahmed Sey xam na li may wax kon kon ñu naan dañuy bëgg. non naan naan maanaam waykat yi dañuy bëgg. non dañuy dégg non waxuma sax waykat yi mais jàngkatu kër maam Cheikh Cheikh Saad bi. jàngkatu kër tariqa tariqa bi tey dañuy kontaan xamul tax dañu naan bu ta wax na dëgg de lii mooy way wala nga dégg mag ñi naan amadou saat xaatimul anbiya <laughs> wala nga dégg wala la ñu naan خير سيدي الإمام njabootu maam Cheikh ak Cheikh Saad bu Ousmane Rasoul dañuy namm affaire yii waaw yii dañ koy namm bari na bari na bari na injabatum kasra qalbi antum ahla dhimami aw hajartum ya hababi fa ashadun ya salam ya rasul allah ya man يا رسول الله يا من يا رسول الله يا من يا حبيب الله يا من نوره ينال وجوه bu ñu ko toppee fii la ñuy fanaan te wooy boo ci tàmbal duñ bëgg mu jeex toarkal la lii nag xam naa ne tey magu tarix bi bëgg nañu waaw dew ma sama kër baat bu mbubb waaye xam naa ne xolam sedd na wallaay ah déw ma tarkala nguraan eh, bàyyi Abdou Mboub yi moo koy daaneel ah, jaa de moo ngumba waaye xam naa ne bëgg nañu boo bàyyi Abdou Mboub yi moo koy daaneel ñu koy daaneel ya saaxibay ya daani eh, inni ubaydu daani Cheikh Sadul سجر بداس القرآن شيخ سعد الذي عن ما نفاد نفوسي وإنني قد داني خوف من يوم تداني عن حب له الخواني الولي ما نجاي سبا أنا رفاد نفوسي ترى أناسا سكارى لكن أصابر سارا سعد الوريا عنا الأفاني الموسي تبارك الله وقت وانا دم te ñu ngi ci xayruñ ba tey te war nañoo dugg ci carrière sëñ Bamba Seck ah que lii ni mu neexee nii sëñ Bamba war naa leeral kon lu waral ñuy affaire yi ñuy ñu dem ba ci yàgg yokk ca xalam gi critique gi donte génn yuntu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dina baax ñi nga xam ne bëgg nañoo xam ñu leer tarkal la euh, waaye maa ngi ndokkeel ñëpp euh, Cheikh Sidi Fawli Maane Ndiaye Maane ma góor a coro borom salgat bu mag bi le vingt janvier incha allah ci géej ñu koy ndokkeel bu baax a baax tarkal la suñ euh, kañ nga dem ba xam ni ba commencé yëg sa bopp ki tagg yonent bi donte judd nga fekk yaay di woy Cheikh Adramé dégg la ngay woy mu def ay mbóot ci yow ndax da am ko daan ànd ak di aw comme xayrudin euh, bi moom nàmp nga ko waaye jàngum euh, taxaw bi wala jàngum air yi mag ñi ndax da am ko war a ànd ak di aw wala da kañ nga sa groupe bopp. waaw nekk rek amuñu woon sañ-sañu jékki-jékki rek dem dañu mës nekk ci daayira Cheikh Hadrami hmm, ci daayira bi hmm. mu nekk daayira bu yàgg boo xamante ni da koo samp ñaan ci Cheikh na Cheikh Sidi ak maamam bi mu duppee boppam ne carrément ki mooy sama wasila. muy chano cheikh yi duumu ñooñu dañoo ñaan ci daayira bi naan daayira umul fadli mhm. umul fadli boobu am ñu ko yoroon ñoom Cheikh Mor Ndiaye jaar nañ fa Pape Sow Pape Sow bu Ndar mhm. maa maa ngi cay maa ngi koy nuyu jaar na ci ay ñoom àll mhm. Diop jaar nañ ci daayira ñoom ñëpp daan nañ fa ñoo di fa way ah, ñoom Cheikh Adama Ñing boobu ñun ay tutànk lañ duñ ci woon dara wax comme ni ma la ko waxee rek <laughs> wante keroog bi mu bi bi bi ñëpp kenn kenn ku ci nekk après da nga da nga da nga dem sa kër sëriñ ne fa ah. buggul daayira sama mag yore woon na ko muy Cheikh sa mhm. yëf yi mënul dem mu defar ma man hmm. ma nekk daayira bi man nag ci daayira bi ci daayira bi ci laa defee nag suma première single sama première cassette. muy ban ne la ca Maka nga nim jaar. loolu nag ci mel ci la as ñëpp ràññee ni. am na am na ah, ah, Cheikh Bamba dugg na ci gaa ci géej bi. waaw boobu dama toogoon. dama mhm. toogoon nekk ci daayira bi man dama bëgg Cheikh na Cheikh Sadbou. wallaahi loo xeertu doo ko rëccu de. Ousmane su may wax ci moom sax ñëpp xam nañ ko. moom Cham Cheikh Sall eh, eh, eh, xanaa ma bañ a continuer ci wax jooju rek ndax Cheikh na Cheikh Sall ba xam nañ man ko ko bëgg laa. moom Cham Cheikh Sall li waral sama clip boobu dama midi bu ma saan jot ay dañuy teg clip yëpp bëgguma tudd kenn waaye musuma digg ku way Cheikh na Cheikh Sall ci télé bi. nga teg ko moom loolu moo nekkoon sama sama objectif pour ma way Cheikh na bu ci télé bi. yàlla dimbali ma ma nekk. nit ki ka jëkk waaye defal ko clip ci télé ñu koy teg. dëgg dëgg yaa ambassadeur bi nag loolu ko ban année la woon. deux mille deux mille huit. deux boobu. laa tuddee Cheikh na la la la wayal Cheikh na Cheikh bu bi génn année boobu laa tuddee Cheikh Hadra bi Sidi bu Yadoo. xeertu nga way la ka maakaan jënd zaat. waaw chérif yëpp nag wut sama numéro année boobu xam nga tax. Hmm. dama way seen maam. man daal ma ko tuuti rek noo ko wayee woon. Cheikh saadul abi ku la gëm maa ngi dem danaa dellu si Cheikh bu taqiwula maam Cheikh Saad boo ngi nii wallaay ñëwaat na kon wax ji ñëwaat na. Cheikh na Cheikh Sakho taqiw la maam Cheikh Sakho ngi nii. Cheikh na ñëwaat na. Cheikh na ñëwaat na. te wàññi ko 2008. te 2008. Cheikh na Cheikh Sakho taqiw la maam Cheikh Sakho ngi nii. ndem sa day woote na wuy ji leen fa dem maam Cheikh Sadbou Diagne la day day Cherif Alwalid Mané Njaay tey ma di la limal ñi Cheikh na Cheikh Sadul Abi defar Cheikh na Cheikh Sadul Abi walla yoo xeeti woon moo defar googu ñu naan Cheikh Ahmadou Njaay borom lu budu waaw waaw góor gu ñu naan Cheikh Madou Ndiaye borom lu mu dow ah. sangu Cheikh Daawuda Sow Cheikh bay Cheikh Mal Ayni Sow Cheikh Sadou Labi moo ko cheikhal ah. Cheikh Sadou Labi moo cheikhal góor gu ñu naan Cheikh Aljuma Ba ku di Aljuma def ko muy rijaalu laay alaaji cheikh mamadou aysata mooy xalifa cheikh Saadu Lamin moo cheikhal góor gi ñu naan cheikh yirim nu maan bala ko du maa ne mbaay yirimoo maami soxna maam jaara juuf waaw maami soxna maam jaaraay maam jaara

sagu Cheikh Matar ma ñaate faati bay mami soxna Ayda Diop aw xeet doomu Cheikh Massamba doomu Cheikh Makhtar soxna Ayda Diop ah. sali Massamba Diop mooy samaay Cheikh Matar mooy samaam mami Cheikh Mahaya Diop ma ñaate faati bay Cheikh de Serigne Touba am na Cheikh Ibra Fall bu dul woon ak Cheikh du xam kan mooy borom Touba waaye bu dul woon ak nda ñaari boro sa njaay Cheikh de Jalaw jërëjëf Cheikh de Cheikh Sadou raw la nga Cheikh de calaw gay ne ngoraan ma ñaate faati mbay maa mi Cheikh Matar Cheikh borom juróom ñaari xaale yi Cheikh Matar Seck yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér almuxtaaru ah. Cheikh Matar almuxtaaru ah. Cheikh Matar almuxtaaru Cheikh Matar Cheikh Matar eh. Cheikh Matar eh. Eh. Cheikh Déthié Law Cheikh Déthié Law Cheikh Déthié Law gay ne nguraan nee na Cheikh na Cheikh Saadu alxayru Cheikh Déthié Law nee na alxayru ashadu yawmal diinu jaalana qutbul wujuud wayle wayle nga jaari bor sa jaay jërëjëf jërëjëf sama gars yi eh Baye Seydi maa njaate Fatim Mbaye ak maa njaate nu mbég bi rek daaw ngoone jërëm ngoone borom xëy noote moo nekk benn gaay soxna Aïda Diop Cheikh Maxet Diop moom mi ngi mi ngi liggéey sax sàmm wallaay ndeysaan Cheikh Maxet mu ngi liggéey sax sàmm bi international bi torkal wallaay bu demee ba anglais yeeg ñëpp di di bëgg sax sàmm wallaay Cheikh Maxet ñu koy jaar bu baax ñu ngi gis liggéeyam ci tarixa bi barkal ah borom 100 pour cent bi borom 100 toog naa mu jëw la ci nii ngay jàngee nii bëgg gi mu ci bëgg wallaahi ah, loolu loolu loolu loolu 100 pour cent ba la ma toog ñuy waxtaan ci ñi jàngkat yi wax ma waykat yi la jàngkat yi bu ma soxla yow la jiital wala nag ren nag damaa jël na sama décision ci 100 bëgg te man kër Cheikh Cheikh Sarr maa ci gën a nul mhm. waaye maa ci ëpp fit ndax Cheikh Cheikh Saad bu laa àndal moo ni sama fii mhm. te sama way ba dafa ñëwaat mhm. Cheikh Saad boo ni woon jamono maa ngi dem danaa dellu soir ki waaye ki toog fii kan la yaa gën ñëw na de. kii ah kii toog fii kan la. mooy mooy Cheikh na Cheikh Saad bu doomi Cheikh na Cheikh Mouhamed Taqiyullah doomi Cheikh na Cheikh na Cheikh Saad bu doomi Cheikh na Cheikh Mouhamed Faral. waaw borom asaada wa saada al wa Saad bu bii Saad bu. waa na njaboot yaa gën ak dafa yaa gën yeeg ah, waa Ngor ak waa kay waa حنيد وعيد وفقر مسع أساد الأساد أتاك أتاك خليل الأعمال كثير الهمم فاد عشاك يا غوث الورى يا غوث الورى يا غوث الورى يا شيخ شيخ صاد يا غوث الورى مريد يا شيخنا شيخ صاد وبيك لو عاش كل أحد ألف سنة ومطره أبدا أدنسنا وقال بالتويل والبسيط فسائل الجذاب الوسيط وقال في الخفيف واكتنب الاسراف والطرف ومشر الشصر والله ان وخيرت سيغ بامبا خمنا bu ma ko toppee la nii lañ koy jàppee rek ba waxtu wa jeex tarkalla maa ngi leen ndokkeel di di ziar ñëpp tarkalla ñu ngi may signalé que ni waxtu waay xaj jëm ci jeex tarkalla saaxoo xam naa incha allah léegi ñu jeexal tarkalla sëñ Bamba ginnaaw nga way way wi nga xam ne mooy sax naa sax naa ne woon jamono maa ngi dama ngi dellusiwaat nga yëkkani dugg nga ci mbir mi tarixa bi bëgg année boobu yaakaar naa Nimzaat ñëpp son boobu la doon teg toirkal la ñëpp ràññeel ci tarixa bi nag nga dugg nag ki sa carrière nga tàmbalee foofu waaw année boobu li ma ci gën a neex Ousmane Rasoul mooy ñu bare way bi dafa bari woon ay polémique hmm. nee nañu lu tax may wax la ca Makka nga Nimzaat ah.

Sëñ Tuubaa wax ni fii boo ziyaaree. kataba Allaahi tabaaraka wa taala ah, anna baytal haram tarfan lil malaa'ika ilaa Tuubaa. ilaa Mbàkke waxul Mbàkke da nga koy weddil. ko weddil. sa goog parce que moom moo bi antal karimu anal xadimu moom moom Cheikhul Xadim sama turandoo moo Cheikhal sama maam. laa ilaaha illallah. waaw ku toll na na Cheikh Sadbu. war a ganee àdduna 40 jours mag ñëpp nag nëbbatu. kenn ku ci nekk bëgg jur Cheikh na Cheikh Sadbu. yàlla jox ko baayam Cheikh na Cheikh Mouhamad Fadal borom yaa man ilayhi fi l umuri jamiuha tasrifuha wa laysa fihi munaziu moom Cheikh na Cheikh Mouhamad Fadal yàlla lay waxal yaa man ilayhi fi l umuri jamiuha tasrifuha wa laysa fihi munaziu ini ilayka bi shafiu taarihu mutawassilun نعم شافع أغنى عن جمال الموت من بلاء سكراته وهناك قلبي خاشع kooku mooy borom téeméeri doom yi moom rek yàlla xamal ñoo ñee ñi leen carrément dem leen ngeen tëddi ngeen nelaw kii kenn képp kese rek moo ko mën a jur moo mën a doon baayam muy Cheikh na Cheikh Mouhamadou Fadul bu mel naa ko moom doy na rek doon wàññi Cheikh Saad doy na rek ah moo tax nag moo tax Cheikh na Cheikh Saad daan ne man doy na rek Cheikh na Mouhamed Waane mooy sama baay. waaw doy na rek wallaahi doy na rek. Hmm? waaw doy na rek. daan ne Cheikh Chiyuxi abi in kunta jaahilahu Cheikh na Mouhamed Fadel. ah li may li ko moom Cheikh Saad li muy yilif jamonoog lépp kenn rek la yaakaar muy bàyyam. nee na moom doy na ko sax jaamu sax yàlla Cheikh na Mouhamed Fadel mooy sëriñam waxu sax bàyyam sëriñam. mooy Cheikh Chiyuxi abi. Cheikh Chiyuxi abi. kon ku xamul dara nay maanu ci waxu mag ñi. rawatina ku toll na maam Cheikh na Cheikh Saad dañ ko mos a laaj mu ne boo gisee boo bëggee gis moom Saadul Abi moo ko wax mag benn mag moom ko mu ne Cheikh na Cheikh Saad dafa mos a toog ne bu ngeen bëggee gis nit ku ragal yàlla ba foo ko fekk dafay toog mais du toog mukk ferankulaayu day jonkan demal Touba ko nga seeti sëriñ Bam ak ragal yàlla. boo mm. ko fekk day jonkan rek bàlla ay soo ko laajee mu ne àdduna yàggul yàgg goo xamante ni nit war na fee mën a toog bay frenkulaayu moom xaadim mu ne nag boo bëggee gis nit ko xam Seydina Muhammad jarul dem Màkka jarul dem Keer jarul nee na demal si Seydil Hajj Malik nee boo fa demee nee na loo bëgg xam ci yonent yàlla Muhammad di nga ko xam. topp na leer ga ba keroog mi gën a. moo tax moo Abi wax ñu loolu. daan neen waaye bu ngeen bëggee gis ab naar bu xonk coon même bu même bu xamulee dara nekk deretu rasulillahi hmm. ñoo leen ñoo leen ci man wa anna rasulillahi jaddi xaqiqatan ah, kon mën nga na jël lu leen neex nag waaye yow cër bu la neex nag mais deret gi moom moom rek ko doon xanaa jàngaloo li xamsatin utwibi ya charal xatimi xaatimal mustafa chara chasad wax xam boppam sa waay ñun ñun ñun yorontowunu ay kii de déedéet waaw cheikh na cheikh Saad Bou la ñu yore fa mu tëdd ca Nimsaat ku fa tëddoon sa bàmmeel suuf lekk na fàtte nañ la fàtte nañ la da ngay ñëw Nimjaat nga dalu dë nga daw boo daloo dawa deux kilomètres fan nga jëm saalixiina hmm. fa mu waxee yoon yaa nafs inna alqabra xullafaa fa qul laa ilaha illa allah kooku mooy Cheikhna Cheikh Sadbou moo ci xale bëri yaaka bët xaral doy na waaw kon eh, eh, eh, kooku kenn kenn xamul lu mu doon sëriñ kon way boobu man waxuma Cheikhna Cheikh Sadbou moo ne la ca Màkka aga Nimzaat ku fa dem da ngay texi ñu bëri mab nag dem Nimzaat ci way woowu soxna sëyi doomi Cheikh Aya sa maam wallaay maamam kooku che cheikh na cheikh Aya mi ñuy jooy te noppeegunu. sunu xalifa mi nga xam ne kenn doyulul. waaw borom 15 avril maami cheikh na cheikh euh, euh, euh, cheikh na doomi cheikh Abbas. waxeertu mënutul bi ne mënutulee cheikh na cheikh Abbas bi borom alhamdulillahi alladi ala alwasila munilana hmm. niamahu jalila summa ala wasilati mu du tari sarata rabbuna mudhilu durri. jërëjëf sa baay cheikh Abbas turando moo wax loolu. jërëjëf <laughs> sëñ Bamba bëgg nañu mhm. suñu xol sedd na waxtu waa ngay dem xat jëm ci jeex oh. taarkal la wallaahi wallaahi te développé gu ma de développé gu ma dugg ma même mais xanaa nga tënkal ma rek sëñ Bamba ngi dem ba sàgg ngay woy xelu diin mais ñu gis nga indi clavier xalam di ko lépp diin ak jamono xam nga lu tax boo ko defu ñu ne xamul dara ah. diin ak jamono la lu nit way ci lu nit way ci eh, diine ci maanaam ci jamono jii mm. ñu naan diw dafa mën a way dafa dëpp dëpp yomb na dëpp naa ñaari air ñetti air yoo xamante ne ku siiw moo ko way ma barki sama dernier clip bi loolu la. noo ko woyee sama ko. ma baa fa mu nekkoon ba tey. ma nga fay daagu ku wéy ah, xoolal ma nabi. nabi sama waaji Seydina Muhammad dinaa la way. baayu Fatou Bintou baayu Seynabu ni dinaa la way. nabi la ñuy muy dox. bégal àdduna am na beneen boo xamante ni defe naa ñëpp xam nañu ko xoolal maa yonent bi ak li ko yàlla defal ñun jullit yi di kanaw di ko bëgg di ko bégee ñu fa séene tey delloo njukkal delloo njukkal ki tax yàlla sàkk noo mooy rasulala ma teg ci ne ali dafa neex lii dafa neex lii dafa neex bëgg yonent moo ne li dafa neex dara gënul neex dara gënul neex moo neex may tëjee question yi bàyyi la nga tëj daal di way er mujj bi mooy bëgg yonent bi dafa neex ku ne xam na ko nag man xam naa ko am na lu ma ci xam mhm. mais yow mi dem ba tiim xabru Seydou oh. naam xam nga xam nga neex na xanaa keroog euh, nga nga jàpp ginnaaw bi yàlla dogalee mu jaar fi mu war a jaar jaar gi sa doom bu jigéen ba nga ziar junti yàlla Muhammad nga wàcc Màkka wala Madinatul Munawwara war a war gi sa soppe ba. foofu rek laa bëgg a delluwaat ndax gëwuma ba tey dem naa Ousmane man su ma dema su ma delluwaatee Màkka rek doy na si laay soogay gëm ne demoon naa Màkka ci sa ci sa ci sunu waaja. mais foofu mu waxoon ni fii ci keppaar àjjana yi la bokk nga taxaw fa. oh boo fa taxawee nga xam <laughs> loolu kay xam nga mën neex na ci wax nii rek. ba ji laay xaram ah. ah. laa ilaha illa allah madinatu munawara madinatu munawara moom sayduna muhammad mi yàlla waxoon inna arsalnaaka shahidan wa hmm. mubashiran wa nadira li tuminu billahi wa rasulih yenente bi wa tuadiruhu wa tuwaqiruhu wa tusabihu bukratan wa asila yenente bi inna alladina yubayiunak innama yubayiuna allah yadullahi fawqa aydihim faman nakara fa innama yankusu ala nafsi moom sayduna moom sayduna muhammad yàlla ni ko yow rasulillah yow mii laay waxal muhammad rasulillah walladina maahu ashiddaau ala kufar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuna fadlan min allah rasulullahi maam yi soxna sëyya mii ñu dippe tey émission bi maam yi cheikh na cheikh al xadra borom reego neex mi sama njool mi maami Chérif Alwalid Maane Ndiaye maami soxna Abdou o oh, maami Chérif Alwalid Maane Ndiaye sa fa dalay bàyyam wante nag cheikh ma fooy bàyyi maam yi borom yaa salaam. ah cheikh Adra ñoo rafet maam ñoom. wallaahi maam yi cheikh na cheikh Ahmad Lamine Seybata. ah borom le Cherif ah, ah, ah c'est le lion du Cap-Vert. waa laa ilaaha illallaah bàyyi cheikh na cheikh Mouhamed Faara. borom Labraar. cheikh na cheikh Mouhamed Lamine doomi doomi yaay la. yaakaari Abdallah ak Abdoulaye Sidek Binta Camara. ah sama waajo borom nag borom 72 du waxumal 24 waaye borom 72 heures yi. neex a fekk neex a fekk yow. waaw kooku kooku man maa ko jëkk waaye defal ko clip. moom Cheikh Cheikh Mouhamed waaw waaw moo tax yamale lu ak dara tubaarkàlla. mu baax lool. wallaay. am lu la sax bëgguma ko wax. Hmm. mun ma li nga mu dugal ne. moom ma li boo ko waxee ma ma bàyyi la am na ak alaxira. moom la kenn xamul lu mu doon. sama papa sama papa la ko tamit. day def ci suuf te kenn du yëg. waaw dama ko way bu ko neexoon def lu doy waar. Hmm. mais wallaahi suma ci télé la mi ngi may seetaan wala waa Farkal wallaay ndax ma toogee xaadir bi dañ may seetaan. wallaay yaay ambassadeur bi tax Farkal la. waaw Cheikh na Cheikh bëgg laa bëgg te lépp Cheikh na Cheikh Saad boo ko waral waaye ki ko def ci man nag mooy sama sama njool mi. Hmm. taalibi Cheikh Ibrahima borom réegu parce que nag il faut su ma toogee fu ma tuddee rek il faut ma tudd Cheikh Xadra. ah mu ta ñàkk. Ah, yaa ngi nii émission boo émission ne Alwalid Mané ma ah, fokk la ci moom laay sago de waaw gis nga mi ngi noonu ah, waaw ku nekk xam nga sama papa dee na kenn ku ci nekk euh, euh, Fatou Kiné mhm. kenn ki kenn ku ci nekk foo labee boo fa xëmmali ko da ngay def fii rek am ndox. waaw ah, waaw de ñëpp. man est-ce xam nga ne man boo ma waxee loolu Cheikh na Cheikh Saad ak la. waaw loolu parce que loolu noonu lañ ma defaree. kii loo ko wax Cheikh loo ko wax loolu Cheikh na Cheikh Saad bu ak Cheikh Matar Diop ah. déggu la. Cheikh Maram Daaru. sama waa kër kenn ku ci nekk ngay béggee ku ne am nga ci kenn ñu ko tëree Baye Sidi Baye Sidi lañ ko tëree borom Ndiassane waaye mu nekk taalibe Hadrami ba xayda wul chibi Cheikh na ba xayda boobu la Cheikh Bachir xool ni ko bor billaay waa ca HLM abarqum bada ma bayna alkastor wa HLM la ma bada hadramiya zakal fata ibnu chibi ay waay li ma bëggoon ma bëggoon temps bi jeex na waxtu waa ngay dem sama réalisation dama saay saay te bëgg naa nga tëj te da ngaa war sant njàpp ci combat bi ndeysaan waaw ah, man man damay wax ni sopp naa ñëpp nag waaye bëgg moom maanaam mu gën a jor rek laa ko def ndeysaan wallaay moo rek te waxtu waa ngay dem danga war a tàggatoo. Mhm. ndax nekkatoo n'importe que ci réew mi yële sax dañoo bëri. te ku nekk nga xaar sax nag. la may bàyyi nga nga nga tàggatoo. laataa ngaa wooyee ndax sama ki ma a saay saay. cet dal la waaw naa da di jàmbaar way bi ma woy soxna soxna ah, moom laay tëjee moom laay tëjee waaw. xanaa loolu dina ma ko may. waaye def nii di sama soppee waa groupe sallallahu ala Muhammad. ñoo ma delloo xaw ma man xaw ma man laa dem xaw ma lu ma def nii. jaar nga Medina Baye dugg Dubaay jaar Fès. <coughs> soxna Fatou Xol soxna soxna Fatou Xol depuis Maroc moo ma def nii bokk ci groupe sallallahu ala Muhammad di ci nuyu soxna jooja di di cheikhu Cheikh sama xarit boobu sama mag sama xarit hmm? eh, di ci nuyu itam tabaarakallah macha allah eh, alaaji yaaba Seck suma président ak sama yaay sama yaay Marème Seck hmm? sama yaay Marème Seck maa ngi koy nuyu bu baax di ko béggee eh, moom dama naan ko moom dong la moo am lu kenn amul hmm. nekk yaayu shérif yi waaye maamu mbàkke mbàkke yi mm-hmm, waaw moom mooy aawoo Cheikh na Cheikh Xadraami Cheikh Sidi mm-hmm. waaye tey ji maa maa ngi ziyaar nag doomu Cheikh Xadraami bu mu tuddee mm-hmm. soxna Mariam sekk di soxna Bintu eh, soxna soxna Mariam kooku Bintu mooy yaayam mi ngi mi ngi mi ngi ñu denc daara Jolof yal na yàlla jéggal ko yàlla xare ko àjjana ak doomu Cheikh Xaddaam mi naan Fatou Fatoumata bint Rasoul ma nga fële ca Ndar tey ñoom ñooñu laay ziyaare waaw ndax ñooñu ay doo ay doomu Cheikh Xaddaam mi tonton sëriñ rek lañ may dañ maa bëgg ndeysaan waaw mi ngi noonu kon su ko defee mhm. eh, comme heure bi dafa jot gis naa ñi ngi lay signaler sànq ba léegi émission bi dafa neex nañ koy def deux heures de temps li li li kay dañ koy def deux étapes parce que li ma bëggoon li ma bëggoon li ma indiwoon yëpp waxuma ko. te taw maa am kon li am parce que da nga ne da nga ne Ousmane boo nee bëreet nag tarixa waaw mi ngi noonu euh, a joxe sama téléphone na xam naa ne lépp du ma nuyu ñëpp mm-hmm. di jox ñëpp dig daje le 18 fële sa Thiès. jàng Thiès sa waaw ah sama année sama sama sama sama damay feetal sama damay damay euh, euh, feete sama seexal sama ñetti seexal. kon daal bis bi ngeen ñu doon xaar euh, Pikine jënd galaay yeeg tànt yeeg lépp. non non yooyu mi ngi Pikine ba ah, tey mais sama première sortie xam nga ah. dama ñibbi léegi sama kër Thiès. Thiès kon daal faaw ñu xam ni que. waaw seet maam ba ñëw na. waaw maa ngi sama kër Thiès léegi mais mm. teew maa ngi maa ngi samay programme fi à ah, Dakar. alhamdulilah kon nag waa Thiès ñu ngi may xaar depuis boobu ba tey defaguma dara yëngatooguma Euh, Cheikh Xadrami Sidi bu war koo présider. ndax moom lu may def moo koy présider Aïdara Chérif. di ci nuyu waa groupe yëpp nag waa Thiès yëpp. Euh, di nuyu nag ñi ma waaye di nuyu bu baax nag macha allah euh, Cheikh Xadrami waaye Ousmane su ñu ngi lay jaajëfal ah, koo limul. dafay nekk xanaa xanaa rek kon ñu bàyyi la rek 3 4 minutes rek nga itam. Hmm. maa ngi fii Cheikh Kalfa. mu Cheikh Salou. Hmm. waa Cheikh Talamizi war fa war fa teewe. incha allah taala ak euh, waa ko Cheikh Amadou Ndiaye. Mm-hmm. ah fële ca Mbambilor. lii moom du publicité waaye xam naa ne comme ah kay yow li ñu defal moo ah, kon kon nag jeex na mën naa ko jàllale rek <laughs> ndax samay programme man maa ko war a jàng kër Cheikh Mal Ayni Sow yàlla na fi mm-hmm. yàgg lool ci ànd ak wér Euh, le 11 la incha allah ma koy taxawee ak waa Lubudu yi. Mm-hmm. ak ak anniversaire El Hadji Cheikh Mouhamed Bamba Ndiaye le 24 fële ca Lubudu man dañ ma ci invité. Mm-hmm. kon nag ñun yii rek la am bu ngeen woowee dañuy ñëw waaye ñun li ñu war a jàllale jàllale ko euh, le 10. Mm-hmm. Euh, di bisu sama sama sama groupe bu tudd sallallahu ala Muhammad. Ah, Fatou Mbaye ci Pikine Icotaf kër gi tax kër Cheikh Bachir li sa Fatou Mbaye war ko taxawee ah, ak waa groupe sallallahu ala Muhammad bi yëpp. waaye di nuyu nag Cheikh Tidiane di nuyu waa régie. technicien yi. ndax lii bu rafetee ni ba bëggoon bëggoonu jeexal sax ñoom la. wallaay hmm, yàlla na yàlla euh, xam nga émission bi ñu fi defoon ak bi wute na. Ah, bokk yokk ci la doon ñeex. kon nag bi bi bi wane na ne que gars yi nekkuñu fi woon. yàq saa daf fi kulli sama. <laughs> waaw di nuyu nag Abdou Ndoye sama doom bàyyi maa jigéen ah bàyyi Sidi Mouhamed ah wax dëgg yàlla ab abuloo tëggkatu maa jigéen ah ak sama doom ji. tabaarakallah macha allah ak eh, Baba Camara ñoom ñëpp ñu ngi leen di baax. ak ñaaxarañ loo moom day ah, ah, ah, xam naa moom ci lay gën a sawar ah waaw mooy Baba tëgg taarkàlla day way day bëgg <laughs> nañu ma sama tàggatoo may naa ko sëriñ xanaa nga nga tëj rek taarkàlla ak soxna Sëy waaw air bi may tàggatoo la boo xamante may naa ko soxna Sëy ak ak ak ak ñiy seetaan ñëpp mhm. marhabana yon nana marhabana سيدي لوالينا مرحبنا مرحبنا يا مرحبا سيدي يا مرحبا مرحبا يا مرحبا سيدي الاولين مرحبا بالله سخنا سياحي يا مرحبا سخنا سياحي يا مرحبا ay darin soxna si ay dara wallaay waxeetu woon ni yaay borom nim saad ak saalixiin ak cheikh na cheikh ayaa mooy sa baay maami cheikh na cheikh maami cheikh abbas baayu cheikh na yeneen mooy seen ma fay na naab naay fatima albatul Seye Aïdara li xam sa derut fii bi yaa Cheikh al Khadim al Khadim al Mustafa marhaba yamnan marhaba Seydi la walina marhaba marhaba yamnan marhaba ndeysaan bilaay soxna Seye doomi Cheikh Aïya ilaahi soxna say yaa doomi Cheikh Aya Seydi Lawali soxna say yaa doomi Cheikh Aya Seydi Lawali Cheikh na Cheikh Saad boo mooy sama te doppeeku nu Seydi Lawali wax leen marhaban yónneen marhaban Seydi Lawali marhaban marhaban مرحبا يا نن